wala 11 heures 10 heures te déggoo xalaas yàlla buur la lu ko neex mu def ko ci jàmm tey kooku lañ leen indil a yaram dina daw mbokku téléspectateur u 7TV yi émission bi dina dina nekk loo xam ne luy daw yaram lay doon dina nekk loo xam ne démb lay doon tubaarkàlla loolu daal la ëttu kër ndaanaan yi indi tey ngeen ànd ceeg ajar ci ngoy caali ànd ceeg ala El Hadj mbay Mbaye mu suñu bàyyi El Hadj Ndiaga macha allah tabarakallah yaay ay Aïcha mbay ñu ngi lay nuyu bu baax di jox sa wàccuwaay di la fekk fii ci sa kër si saw yaay nuyu naa la bàjj Mbaye fay naa la Mbaye ndeysaan kontaan ci yow rek Mbaye ndeysaan bég ci yow lool mhm. te bég gi ma bég nag ci yow dafa law ba ci Modou Mbaye gar mi sama ndeysaan ndax yaa ko wax léegi hmm. bu dimanche jotee midi une deux heures faw nga dégg ay sa mbay ndeysaan saan di nga ko dégg ci gémmiñam wala nga dégg ko ca bekaay mbay ndeysaan waaye garmi mën na maa taxaw ci moom tuuti parce que gar mi bañ ma déggatul ba léegi yàgg na saan waaye gar mi moom toujours ma ngay dund ay sa mbay ndeysaan ñu ngi may dund chaque jour te man ba ma ñàkkee Ablaye Mboub ñàkk Njaga Mbay ñàkk sama càmmeñ yooyu nga xam ni dañoo fee toj ba pare def li ñuy def dem seen yoon laa muñ lépp ci aar bi barke Sëriñ Tuubaa Mbàkke fa fekk nag borom mi bokk moomul boppam nitu ni ñeet moomul boppam mm-hmm. ndax léeg-léeg nga ni damay bangu ah san njaboot fëgg la ni lay jógal dañuy def nangam doo ci man dara kom tey nii ma tëddee nii tension bi xaw maa sonal ngeen ñëw ma daal di leen ayca nañ leen ko ci nekkal rek waaw ala accu ndeysaan foofu daal laa yem ci nuyoo bi di leen gërëm di leen sant di nuyu Ablaye Mbaye sama doom ji mm-hmm. doomu Njaga Mbaye ndeysaan ma daan ànd ak baayam mm. ca Amat Fall xarit Penda Diak fu ne mm-hmm. ca ñu ànd fa toj ko tey bu ñu demee ba gisatuma njagam mu taxaw ci sama kanam ni yor xalam dafee fi dafee fi maamam ndeysaan jàkkaarloog man yow ngoy mbay mii ab du seex mbay jur ak nday mm. mbay nga jàkkaarloog man ma daan la fekk ca Makka ndeysaan ngay fa ca or ya ndeysaan ngay fa ca or ya di fa ca cuuraayu cher ya ndeysaan ah mm. ab prisuris ya kol yu rafet ya ndeysaan ah ay yooni yooni yoon wallaay Mbaye kon tey su ma la fekkee 7TV. Hmm. nga defa def émission damay wax ni. Hmm. ala accu. ndeysaan ku màgg daal fekk say mbokk. foofu daal laa mën a yem ndeysaan ala accu fekki say mbokk. moom la wax léegi ci El Hadj Amadou Mbaye Garmi. ne bu dimanche da koy seetaan. moom la wax léegi ci El Hadj Bekaay. Hmm. sama nijaay ne bu dimanche mu teg ko. ñun loolu rek la am. am na fu taxaw ni leen. ñun géwél yi nañu bàyyante sunu bopp xel. géer ñi teraanga la ñu séq ñun. waaye ñun dara tañu boole. dëgg sama yaay ay macha allah kon looy ubbee tubaarikàlla. jaañu yaa seen yi lan naa may. oh. Fatou Seck ma leen jimbi jimbi seeni ko mbay. Eh. ko samba ak ma samba ndey biram benn ko mbay ma des te ne ngi ko musaan seen xarit mbaay seen bañam ya ngay seen mu reela ndeysaan way jaaji yaa seen naan ak may xarit ma lay seen نحن ليس سهل هدينا كل غنى غنى كل غنى غنى كل غنى غنى سوسي ما جاوغا أجاجا ما جاوغا مسلا نيسان خدمة gudena naru mai zazen jajiya sun yi lana mai fasa kamarin jimbe jimbe sani ko mai ak ma mai zamba ak ne biran benda ko mai modestiny way ma seen samba ma ca caaro xadi may sa seen guddeena ndeysaan saan seen xadi may seen ba ñam yëngay seen mbureela ay waay jaaji yaa seen ñi xadima lay seen guddee na jaaji yaa si ñi la ànd ak mbay fa sekk marim jimi jimi seeni ko mbay ko mbay sa baama mbay sa ma ndey biram benda ko mbay cembul ku la nga nanga daa soose nga jëwul ga ak jaajam sa muslaat ndeysaan eh, ay di may seen guddee naa naaru may sa seen naaru aj ami ñang ba guddee na ñaari tali jooy na weet xadi may seen dem na waay ay waay yaayu ndey xadi seen sama doom jaa nga pari faat sekk mareem jimbi jimbi seeni koo may samba ak ma samba ak ndey biram benn koo may ma des te neegi mbul mi caam laayi jooy ñaari tali jooy na weet ay waay Modou Mbaye gar mi jooy na weet papa Mbaye jooy na weet yàlla buur la lu ko neex mu def ko ci jaam ñi lu ko neex mu def ko ci jaam ñi tubaarkalla macha allah tubaarkalla macha allah fi ma toog sama yaram daw na laaji pap sa bàjjen indi na démb ëttu kër ndaanaan ndaanaan rek lañ ci soxla tubaarikàlla macha allah sama yaay Aïcha fi may njëkk a dugg ak yow mbay mooy xadi may sa seen nii ba tax muy générique boo xam ne àddina bi boo déggee xalaas yàlla buur la rek foo sa xel dem ci Aïcha Mbay sa digganteek moom lan la woon ba waral woy wi topp la tey ba boo nee Mbay ne Aïcha Mbay xalaas yàlla buur la ah aji ngooy ndeysaan Xadi Mbaay seen de sama rakk la woon nekk ñaari tali. Mm-hmm. li xale yi naan def bës. Mm-hmm. mu am bës bu rëy nag ci usine ñaari tali. ndeysaan Xadi rafetoon na. bari woon na karaw. faas yi xale yi di wut tey ci Xadi Mbaay lañ ko gisee. Mm-hmm. waaw booba bu samedi masaana jot. foofu arène c arène eh, stade Iba Mar Diop fa la ñuy defee soirée yi booba soraadu pareelu booba néegu ñax la maam Kumba Maane dafa toog restaurant ñu ñu koy tabax ndànk-ndànk Sorano pare na. Sorano gi waaw. ñuy def waaw ñuy def nuit sénégalaise yi soirée sénégalaise yi stade Iba Mar Diop. waaye xali mbaay seen bu ñu tëggee bu dun njaay tëggee àddina bu tëbee ba wiccax loxo bi wëndeelu rek sa yaram bépp daw barki fecc kat la woon ko fecc dafa mën a fecc hmm. dafa mën a fecc boole ko rafet ja neex ndeysaan macha allah magam nag laa doon àndal soose seen moom laa doon àndal ci is ñaar tali moom it yal na ko yàlla yërëm jiitu na mm-hmm. waaye Xadi Mbaay ko jëkk a dem ndeysaan Xadi Mbaay nag mm-hmm. mu deewee nu ma metti nag metti àdduna bépp nag mm-hmm. télé bu ne daf may laaj mais du ma ci bëgg a xuus te du ci wax te du ci wax sax du ma ci wax sax nag dëgg la lu mitti mm. lu mitti Mm, kenn du ko fàttali du ko fàttaliwaat. ndeysaan métti na métti na rek dem na dem na. ndeysaan waaye nag woy fi. Mm-hmm. woy wàcc naa Paris. Mm-hmm. sama waa kër ànd ak tubaab yi ñu woy ko orli keroog damaa jooy. oh tubaab yee xees weex taal jan taaloo man ak mm-hmm. woy xalaas yàlla bu la tudde ko xalaas bu bees. oh waaw. yor seeni i koora ak seen yëf ma ni tëll rek yam ci ñoom ak seen jëli sa Abdou Karim ma ni tëll yam ci ñoom rek. Abdou jiite woy wi ñu aw ko rek Aziz sama doom bi ne France sama taw ak alaaji ma oh. ma ne leen tey ngeen xam ne ndegam yéen nit tubaab yi xonq too yéen a ko ba bu bees waxuma la ak man ma yuuxu mm-hmm. ni leen woy ngay seen mu reel oh. ñoom ba ay tubaab nga ay tubaab yu xonq cooy mu ngi ci internet bi kay ndeysaan di nga ko gis boo tapé ay samay France rek di ko gis. d'accord. man xamatuma lu may wax du duwaañe tubaab yi police tubaab yi <laughs> ak du euh, duwaañe tubaab yi ñëpp def nii nag jàkkaarloo ñoom. di leen xool waa ci aéroport Orly. ndeysaan nees baa ngay def lu dara jarul. ma sol garaam bu bu ci boof boo xam ne. Mm-hmm. xaw ma li xew sama première voyage France. xaw ma li xaw ma sol sama cuub ga rek kaalaw. waaye ba ma nee tëll ba ma ba ma ma nees ba anee. ba sànni ma ca pomba. ndeysaan ñu sànni ma ñeenti jagat. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan. ñu sànni ma ñeenti jagat ndeysaan ndeysaan. ah. nag xam naa ne woy wii. fa mu yóbbu woon Abdou Koumba dem Yacine Gueye Anta Diop. kon loolu dëgg la. ma ma joxoon ordre national du mérite ba. Arame Gueye Massar Yacine Gueye Massar. Abdou Diouf waaw waaw. Abdou Koumba Dem Yacine Ngayanta ma Mamar Gueye Massar Ndaxte Gueye Massar Ibra Gueye Massar Baye Yacine Diouf kon Elisabeth Diouf sama waa ji sama marraine bi moom dafa yëgoon wayu nii ko ñoom gar di yëgee la ko yëgee woon ba taxawal ma pale jox ma auto national di Médine envoyé naa la ko waaw waaw ndeysaan moo tax nag hmm. moomatuma ci sama bopp mënatuma bàyyi wayu dem déedéet déedéet parce que addinaa ma koy laaj kon il faut ko ma di ko way la ma yotti répertoire barke Serigne Touba fees na teet waaye fu ma ñëw ku ma invité xalaas nga may jëkk a laaj yàlla buur baatu démb ba ak baatu tey bi nekkul benn waaye woyu démb bi laa woyaat tey ndeysaan waaw bi ak baatu tey bi waaw na waaye woyu démb bi laa woyaat am na cinquante ans ah nga am foo dugg danga ni sama taaw ak alaaji Maada. waaw. alaaji Maada sekk sa borom kër la woon. waaw alaaji Maada sama borom kër la woon. day ndeysaan. personne yu ko faaleeg mbiri mbiri ndaw ma jigéen seen yaaya Demba seen. ndeysaan baytir ma jigéen boor aale ma jigéen boor san sekk ma jigéen boor xewe yaay njekke njaay maali bàyyi manga ak jaxeeri bàyyi manga bu béyërëb su mujjun njàmm ay menga njaay mm-hmm. kooku dafa war ak man àdduna. Mm-hmm. nu taawlu muy Abdou Assis Sy maam Abdou borom Tiwaawan xalifa général bi ñuy jooytu noppeegul. bàyyi umu xayri si bàyyi umu xayri si maamu Yaasin Ndooy. waaw maamu Yaasin Ndooy. ndeysaan mhm. mm. si. ndeysaan bàyyi Faat si. ndeysaan kooku keroog ba koy tudd ci isin ñaari tali ku ñuy wax alaaji Tidiane say dabir la yoon mu ne bu alaaji Maada nee na daf may tudde doom bu tuddee pare indi leen ma xale bi maam Abdou waaw. ñu tudd ko ba pare ñoom Seynabou Gayndate ajatu Seynabou Gayndate ñu jël liir bi ànd ak alaaji say Tijaan alaaji Tijaan say Dabir yóbbu ko ca kër soxna Fatou Ba ndeysaan ca Fom Ba yóbbul yóbbul ko xale bi ndeysaan mu téye ko ñaanal ko daal xale bi de dina am jom dina tabe sama yaram baa ngi daw dina bëgg lu baax oh. te dina mënoon daa dina bu ngeen weddeeloo xool leen kanam gi dafa mel ni maa ko jur mi ngi ma ne du pett demagul fenn nii te dëgg la woon ba boo xoolee Abdou Aziz rek defe ni maam Abdou ko mhm. Mhm. tabe gi am na mhm. tabe gi am na am jom gi am na bëgg lu baax gi am na bëgg sëriñ Fallou geeg Cheikh Abdoul Karim Mbacke am na barke sëriñ Touba Mbacke tayit demul Europe rek toog fa di aay de déedéet te mu fa rek tàllal loxoom ci kaw naan maa nga Europe. dëgg la waay ci internet bi di def émission deful lool de. Mm. dafa dem Europe seqanteeg tubaab yi lu baax ba ñaar fukki tubaab ak juróom-ñaar nu ngoo moom ñëw senegal fekk si ma man mii. waaw. bi nu ñëwee ñu àndandoo dem tubaab jalaaw jël fa ñaari kër tubaab yooyu ñoo ci takk sama ñaari doom kenn ki takk Awa Ndiaye samam caat ma nga Havre. kenn ki takk jaay dem sek samam caat ak alaaji maada ma nga Lyon ndeysaan Seynabou moom fekk na mu jógee Japon ñoom moom artiste la fecckat la danseuse la moom international la moom wër na Japon wër tour de tour du monde gépp wër na moo Koura Ndiaye mii ñu naan Koura Macky waaw te naan fecckat bu mag baa ngi waaw Koura Macky ñoo doon ànd wër na senegal ba mu daj wër wër ba mu daj Japon Amérique France Italie Espagne mu soog dugg soraanoo ne damaa bëgg a marqué sama empreinte waaye man dem naa ba dem Japon am fa 3 mois te dugguma Sorano mais nag loo man man boo dugg Sorano doo marqué sa empreinte. dëgg la. mu dugg Sorano ànd ak ñoom Italie mu ne leen fii hôtel bii ngeen ma indi barki dem rek laa fi jógee sama bopp. Mhm. noonu laa am ak Alaaji Maada Sëriñ Abdou Assis Seck. ndeysaan Seynabou Gueye Seck. Njaay Alaaji Njaay dem Seck. ak njéeme ma ma dem. mënuy jooytu noppee. ndeysaan ñooñu la am am ak alaaji Maanta Seck waaw Abdou nag jom. Mm-hmm. ba pare doyul. buggul alalu kenn nee na lu ma sama ñaq géwal bu dul woyaan a ngi ne lu ma sama ñaq mayul bugguma ñaq ci màggal gi mu ne bëgguma dara na màggal gi rafet man sëñ Abdou Karim Mbacké rek a ñor. Oh. na màggal gi rafet. yónnee ma xaas bu bari ni ma demal jënd nag yóbbul sama sëriñ bi. ndeysaan. bu waa mbaar mi paree. ba pare waaw bu seen waa mbaar ma paree. bayam yóbbu sama nag bi na jiitu. léegi nag man maa ngi waa waajal Kazu Rajab gi man lu ma am sëñ Karim ma ko moom. ndeysaan ndeysaan. koo koy El Hadj Abdoul Aziz. ndeysaan waaw. waaw bàjjen macha allah koo koy El Hadj mi nga xamante ni El Hadj Maada Seck ko amal. waaw. dinaa taxaw foofu tuuti nag. Hmm. alaaji Maada yan communicateur traditionnel la maaseloon jamono. <laughs> laay laay la laa. Hmm. ay waay yaa ma laaj lu ma kontaan waay. <laughs> ndeysaan eh. oh. ah <laughs> ndeysaan. Hmm. ay waay waay waay woo nga naan guuxum soow. dëgg la. Abdoulaye Naar Samb ma ne jooto noppeeguñu la daan àndal. alaaji Amad Ndiaye Samb. la daan àndal. ndeysaan. alaaji Samba Jabare Samb la daan àndal. Mm-hmm. alaaji Assane Moroqee Samb moo doon seen trésorier moom la doon àndal. Mm-hmm. alaaji mo Alibata la daan mm-hmm. àndal. maam Alibata moom la daan àndal. Kaani Samb la daan àndal. ñii la doon àndal ak alaaji Mansour Mbaye. waaw Mansour nag moo nekkoon xale ba. moom moom xale la woon ci seen biir ndax Mansour moom. Ah. moom tubaab la woon moom moom tubaab la woon intellectuel la woon intellectuel moom d'accord ma nga woon ministre de l'information nekkoon na fa xuma chef de cabinet xuma directeur de cabinet waaw mu taqaloo orts boobu orts la nekkagul RTS e hmm. Mansour Mbaye liggéey na foofu ci ministre de l'information ndeysaan voilà boobu moo nekkoon seen rakk moo ci gënoon tuuti hmm, hmm. waaw ñoom Guita Mbeer lan la woon ci ñoom Mamadou Issa Mboup bàyyi dadaa. waaw moom mu isa mbuub. Mhm. maam ma xujjaa ko jur. Mhm. ma xujja boobu ko jur. moo bokk euh, sama maam Mamadou Issa Samb moom lañ ko tuddee. ndeysaan sama maam Mamadou Issa Samb. Mhm. waaw papa yi Tayar ak ak maam Birane Samb. ndeysaan ak Pati Samb. Gitambeer nag di xale bu baax. ndeysaan bokk ak ñun ma xuja di bàyyam. mu hmm. daa mi na ak baabaa mi kooku taxoon na kenn ku nekk bëgg ga doon intellectuel ndax moom géwél ga ku xool ci ñooñu rek sa géwél da koy teg ne rek daani sa doole. gi tàmbeel hmm. ku nangoo daan doole ma nga ñëw. Hmm. imprimerie bu la romb benn moo ko moom. ndeysaan waaw. doomu Musamb jooju. ndeysaan kay. papiteri boo romb benn ñaari gitambéer a rek la doon dunde ndeysaan daan dooleem rek la xamoon. ndeysaan waaw jur ci ay doom nag. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu mayoon ci ay doom. mën nañu xam kañ nga dugg Sorano. Sorano ak fa fekk ak ku la de yow nag fi nga taxaw neex na de. ndeysaan parce que. Mm-hmm. Sorano de su ma juumul maa ngi fa dugg. 74 75. 74 75. ndeysaan. maa fa fekk xaar may ma jaaga. Mhm. maaw kuwaate. Mhm. ak euh, Kiné Lam. Mhm. Kiné Lam na. moom fekk naa ko Sorano. waaw waaye bala moo dugg soraano am na jaar jaar man ak moom. waaw. dinañ ci ñëw. waaw. ñooñu laa fa fekkoon ci géwél yi maaw kuwaate Xadi Juuf ndey waasanaam ak ak ak ak ak ak bambara ba ca des mun mu turati waaw ak sombel fay njaga ak njaga bay gawlo mm-hmm. laay mbuub jaman noonu tawu leen ah déedéet laay mbuub moom gaañu na mu soog faa dugg ma job sekk ma job sekk fekkente nañ fa ma job sekk Ndiaye Samba bu waaye yàggul ak Ndiaye Samba bu Ndiaye Samba bu waaw waaye yàggul nag waaye yàggul waaw ak kii mhm. ñoom ñoom ma job ak Mad Fall mhm. Mad Fall sama papa tam Sir Fall waaw yàggul yal na ko yàlla yéen Ndiaye Samba laa fa yàggal Ndiaye Samba waaw Ndiaye Samba ma euh, loolu la dugal Sorano man de Abdou Diouf ma dugal Sorano hmm. booba sama 33 tour bi moo génn waaw waaw ah kon 33 tour bi génn na te yow duggoo Sorano waaw looloo tax ba ma giro di présenté. waaw mu ne sa mbay mii amul dara loo xam ne si di ngeen ko ko mën a jaay ci way parce que ci biti la toog génn 30 waatu ci biti. waaw mu def fa iflam. def ju Alaaji Njuga Kebe jënd ko yóbbu ko supermarché Sam. Hmm? booba supermarché Sam Njuga Kebe nga koy sug a jënd. ndugante Samb asta binta aram jor ay safal aminta mooñ ma jigéen tàkko benn mbëggeel maram mbay tabaski tàkko bàyyi moom bàyyi Moustapha mi ma tàggul bërki démb ci màggal gi. ndeysaan waaw. bërki démb rek laa tàggoog Moustapha Kébé ci màggal gi mu ne ma sama xoo sama petit papa rek laa lay xoole ndeysaan ndax sama yaay daf ma doon wax ci yow ak sama papa. Mhm. ak tante Marème Dieng. ndeysaan jënd ko disque ba jeex mu ñëw mu jeex ñu pirate ko ca Moravia. te te te waaw pirate ñu pirate ko ca Moravia booba. saan ndeysaan Basirou Fall Jomba ñaaw mi ngi sànd di jaay ay montre ndeysaan bi ñu ma piraté sama doom di dem sama palaasu papa gis ñuy wàcc ay kees taf ci sama photo mu ni ma gis naa ñuy wàcc ay kees ci jaaykati kaset yi taf nañ ki sa photo ma jox ko ni ko demal jënd ci mu dem jënd ci kaset 3000 francs mais mu wàññiloo ko ko mu ni ko duma ci wàññi dara mu ñëw jox ma ko mu ñëwee jox ma ko ma mël dem di ko jëndi dem di jënd ni ko fukk laa ci bëgg waaye dama cee bëgg lu bari mun ma boo ci bëggee ay mille mille ma jaay la laa mu waxee loolu nag man ko dama cee bëgg fukk mu di ma jaay ba pare te nunguwu cee wàññi dara te sa kasat la yaa man la waaw xàmmeewu ma mhm. ma daal di jënd ñaar ñibbi ba mhm. ma ñëwee wax ko jox ko sama càmmeñ bu ñuy wax Asis Mbay yal na ko yàlla yërëm ndeysaan booba liyeet naa la mi ngi central mhm. bi ma ko ko joxee moom nga déggoon ñi naan Aïssa Mbaye ca ba muy raafal commerçant yi ca Sandaga man mii la woon ah. ma ànd ak Assis Mbaye mu sol tënee man ma jiitu sumi la ma sol mal fu ba sol leneen waaw bu bëgg mu sol waaw ñëw ni ko kasetu Aïssa mbay laa bëgg mu ne ma ñaata nga bëgg ma ne ko cent laa bëgg mu génne cent teg ci taabal ji naka la génne cent teg ci taabal ji rek ma génne sama carte ni c'est la police daal ne Aziz Mbaye kaay Aziz ñëw Aziz sama joxoon kàttam boobu. ndeysaan mu ñëw jël carte bi ne c'est la police mu ne carte yi yëpp foto ay Mbaye ñu génne kees yëpp. te Aïssa Mbaye tax maa taxaw nii waaw te xamuma. te xamula waaw ba tey xamul. kan mooy Aïssa Mbaye. ñu génne kees yëpp teg ci kaw taabal ci. ciy pirate. waaw pirate rey na nii. rey na nii su ma toogee ba léegi nekk nii rek. waaw nga xam ne pirate rey na ma ba ma nga dee waaw. ñu daal dugg sànd gi nag waa central wàcc sànd gi nag jël ay samba yëpp génne waaw ba suru faal yëg koo daal ni kooku sama géwélu bi doon daat la dëkk nday ndeysaan daal di ñëw ci man ni ma dama lay ñaan ngir barkem ndaat barke sunu rand ga ca ndaat ndeysaan ñii bàyyi leen ndax man lan yaakaar te yow maay sam juddu <laughs> taxaw daal di may tagg ba ñun dañuy taggante géeri ndaat yi dañuy ñuy géeri ndaat yi waaw ko ci way ni maalu ma sàmba waaw mu ngoo géwél tamit dañ leen di tagg mm-hmm. ba mu ma taggee nag ba pare nag ni ma ñi boo leen jàppee mën nga jàpp ale ba kor bii gi soo leen bàyyee man nga bàyyi assis ni ma boo leen bàyyee ma dogog yow kii ni boo leen bàyyee soo leen jàppee ma dogog yow xamatuma nooy def ñu ne nañ leen bàyyi ba guddi ñu dem kër ga waxtaani ko ndax lii pootum biir la dëgg la ndax am na ci ki ma jàpp man ki ma jàpp jabaram dafa wut ñu war koo ngénte ginnaaw suba kooku boo ko dugalee kaso rey ndeyam wallaay rey nga ndeyam ah. wallaay man leen nañ leen dem kër ga bi ñu ñëwee kër gi ñu jiital ko mu ñëw ak yaayam jabar jeeg bébé bi ba sufaani ma ma gis la dama bëggoon a bàyyi ci saasi parce que oh. waaw oh. man ba ma gisee liir beeg yaay rek wallaay ndeysaan Sëriñ Tuubaa Mbàkke man bàyyi la mais yaay nga waaw yaay laa yaay nga ba su faal ma ma gis la. ma daal di jóg ànd moom dugg ci ne ma gis nga ñii ay xërëm rek lan yor soo leen nee jox leen ma nangam. dinañ ko tise jox la ko. dëgg la waaye boo ko deful xëccoonteeg ñoom. ne dañuy dem tribunal. dinañu jël avocat xërëm leen xërëm ñëpp ba ñoom duñu xam sax lu ñuy defaat. te doo am li nga bëgg. te am li nga bëgg. loolu nag laa lay ñaan. ci njëkk ak teraanga ngir nga bàyyi man ko xoolal. xaas bi ñoo ko mën a sàkk mun noo sàkk pour commencer bas man banaa lépp mu ne ma déet noo ba nepp lépp nag kees yi kër gi fees dell ak kees ay sambay loolu moom mënuñu koo bàyyi leenu mën a def mooy na ku ne génn téeméeri junni waaw ñu bàyyi la na li ñu def noonu ñu giseen ndeeg bas ñi génne trois cent mille ci saa si ñii deux cent mille ñii cent mille ka sàccoon ka tegoon kasa sax moom jënd na xarum tuddam ba jox jabaram mu xotti moom poosam ñaar fukki junne lañ ca fekk ñu ne léegi dañuy bàyyi bu subaa ñu dem ci commerçant yi xool leen ñu seet seen i banque ak seen yooyu ñu mën a génn xaalis bu mag mhm. waaye man xolu bëgg sëriñ Touba gi dafa dee ci man. ndeysaan man bi ma nee taalibe Serigne Bamba ma gis leen ci Serigne Touba. Uh-huh. ñu ko tooñ ba yóbbu ko waxal ko lu bon ba yóbbu ko. ba ñu ko indee li mu njëkk a def mooy baal samay noonu. fii ci waaxu Moussa Seye. naay naay te man ma bëgg ma ne mu ne waaw ko ñii li ñu indi doy na baal naa ñëpp. naay naay Assis Mbaye ni ma tooñ nga man. liggéey liggéeyaloo nga ma pour dara ma ne ko déedéet. ku dul baale baaxu wallaay dëgg la mbay yàlla gisuñu ko yomal xiyaam bu nu baalul fu nu jëm xaw ma ko ñii dama leen di baal ngir ëllëg ngi samay doom ak samay sët looloo waraloon ministre de la culture bu ñuy wax Alioune Sène mhm. moo jëkk nekk ministre Abdou Diouf mhm. Pam Massène Sène nekk ko directeur de cabinet di rakam mu yor ñu def ma ci Jeune Afrique mhm. mi ngi ci mi ngi ci archive bu ministre de la culture soo demee archive nationale di ko fa fekk. dégg la waaw Jeune Afrique. Jeune Afrique waaw maa ngi ci taxaw ni yore lay tën nii. ndeysaan taxaw di woy nii ci benn micro. ndeysaan waaw macha allah dégg ngeen li sama yaay wax ay Mbaye ci pirate mag la nag te dañ ko fekk tey tension bi xaw ko sonal il faut émission bi ñu boole ci xel Pape dañ ñuy demal tuuti ci suñu baay Njaga sama yaay suuf la tuuti ñu del si waat ndax mag mag buur la ndeysaan man du ci am xarit pendal ndeysaan mhm. ndeysaan waaw du faal xarit te daa sëriñ biir lañu koy wax du baayo lay dawa waay Amadou Fall xarit Penda ndeysaan sëriñ biir wax du baayi ndey daaba faal waay Amadou Fall xarit Penda ndeysaan sëriñ biir lañu koy wax du baayo ndey daaba faal Amadou Fall xari penda mm. sari pin lañu koy wax du bàyyi ndey Daba Fall mu bàyyu ndey Daba Fall bàyyu asta ca ngor gaamaleen kanam soobu Amadou Fall xari penda sari pin lañu koy wax du bàyyi ndey Daba Fall dégg góor ga daan naa naan góor suy uddu day bari jàmm. góor ga daan naa naan góor suy uddu na xàmmi ña jur kon. góor ga daan naa naan góor suy uddu na moytu di tooñi. bilaay kon xarit penda. sëriñ pir la nu koy wax. tubaayu day. eh waay Amadou Fall xarit penda. sëriñ Pire lañu koy wax du bàyyu ndey Daba Fall. ci yaay Aïcha dundal ba mu yàgg lool. ndeysaan naan baa ngi nii wëli wëli baa ngi nii. jigéenu Njaga Gawlo. waaw waaw jigéenu laay mbool. dëgg la de ndeysaan. Amadou Fall xarit Penda. sëriñ Pire lañu koy wax du bàyyu ndey Daba Fall. ndeysaan xay penda ndongo amee penda ndongo penda ndongo fari ma tambe jamba duwaare dëgg la biram bañ ko mm-hmm. amaat ma far xari penda ndeysaan mo yaa doj lekk ma naarees mm-hmm. ndeysaan penda kon ndaanaan yi tey yi roy leen ci démb moom ndaanaan yi tey moom roy leen ci démb moom yaay ay samba yaay dëgg dëgg jàmbar jaale Amadou Fall xarit Penda sëriñ per lañu koy wax du bàyyu ndey Daba Fall. ku amul la nga soxla. jàpp ca la nga am kon mu doon nga nel ya nga soxla waaye nag ndene njaayi. Hmm. mbaa. nga bat mi géej la oh. sëriñ per la nu koy wax do bayu daba faal mu do faal fari benda sëriñ per la nu koy wax do bayu daba faal ali laat nu koy wax ndax nu na maam ya dafa maanu si sulu soxorul kii ku ko am looy xalawut wow wow wow xari penda sani penda Amadou Fall xari penda sëriñ pere na nu koy wax du baax ndey da ba faal macha allah ëttu kër ndaanaan yi ñu ànd ak télévision bu mag bi la 7TV télé bi ñuy nduru ba noppi te di ñu dajale mm-hmm. la télé qui nous ressemble et sama yaram daw na mm-hmm. sama xol dafa tooy mm-hmm. ndax ku sama yaay Aïcha Mbaye bu toogee jàkkaarloog Pape gisul Pape Ndiaga la gis waaye Pape bi gisul Aïcha Ndiaga la gis yaay ñu ngi ci njeexitalu émission bi. Mhm. suñu ataay ji nag macha allah ci la ñu jëm. Mhm. macha allah bala ñoo dem. bala ñoo dem macha allah ci say kàddu yu mujj. Mhm. sa digganteeg njaga tuuti rek ñu briefing bala ñoo xelli ataay ji. ndax émission bi ñuy wax euh, tukkër ndaanaan yi. dafa am lu mu àndal mu di ko gunge. Mhm. yaay sa digganteeg njaga. Mhm. bi paap yuuxoo. Mhm. lan la la jox. laay laay laa fi ma toog kay mënatuma dara. ndeysaan ba mu yuuxoo moom gisuma ko moom njaga mbay laa gis. ndeysaan parce que sëñ parce que. njaga dafa nekkoon koo xam ne. muy def xamu ci dara yëgu ci dara. dëgg la njaga Bernard Bongo day war a ñëw Sorano. Bernard Bongo. dafa war a ñëw Sorano. ndeysaan. ñuy fent loo woykat yi ñu ñu fent nañu suba fent ngoon mënuñoo fexe ba woy woy bi mënuñoo fexe ba ta Senghor a koy recevoir ndaxa mm-hmm. fentul deful dara ndaxa dikk fekk ñëpp ñëpp fent ba ñàpp mu jekki-jekki rek ni Albert Bernard Bongo Léopold sunu xarit ndeysaan ñaan yu bëggante tey weccey xalaat yaay mooy jàmmi borom ñëpp jaaxle yoo mbëggeel metti na ndeysaan kaay ñu bëggante tey weccee xalaat yaay mooy jam lay lay la la Bernard Bongo Léopold sunu xarit ndeysaan ñaar ñi bëggante tey weccee xalaat yaay mooy jàmmi borom be yaaye mbëggeel metti ñaañu bëggante tey wecce xalaat nga xam ne Njaga Mbay la yàlla def ci moom yëgu ci dara xamu ci dara dëgg la ndax fekk na ñee lijjanti ba gooy ndeysaan waaye moom ba mu dikkee rek dañu daal di ñun ñëpp mu foto ñu rek te daal di ñuy teg ci yoon wi rek way bi génn wallaay mu misik ko rek mu dem mu dem Bernard boo ma jóg foon sengoon sengoon foon ko ñu ñoom ñëpp ñu tar fi Njaga Mbay ci ndeysaan ndeysaan xam nga ni loolu loolu man dama ko gisatul ci benn seen dëgg la dëgg la dëgg la ndeysaan ci wàllu aar bii nag bala may jeexal dëgg la bàjjen dama ci am lu ma metti torop mhm. ndax man damaa dëkkul Burkina Faso mhm. dëkkuma Guinée Conakry mhm. ay sa mbay laa tudd Ablaye Mbaye ma jur ak kura sekk ci isin ñaari tali ndeysaan ma màgg dib géwal war a woy woy xaadir laa jëkk a woy hmm? waaw ndeysaan aman Njaay la kaas fa lañ ma jëkk a duggal ndeysaan ma dugg fa woy fa njuga jëng borom bii màkk yu bari yeeg wutuñ bari wi ci ndeysaan te saraanoo dëgg la yàgguma fa. Mm-hmm. mais damaa yaakaaroon ne bala ñoo jël ña fa bokkul. ndeysaan. war nañoo ba mën a jël ancien ya fa newoon. waaye mooy dëgg sax nag. ndax man Abdou Diouf moom mu fay dugal. Mm-hmm. billaay néew ma ko dugal. déedéet. dafa gis ma xaritoo jabaram rek lu ñu tudde jabaram mu ne ma demal inauguré ko. ma dem inauguré ko moom Elisabeth waaw. Mm-hmm. sama marraine boobu. moo daal di ne ma dama la bëgg a dugal Sorano ma ko man naa disque aw ma problème yóbbu naa sama yaay màkk yóbbu naa sama wujju màkk dem naa màkk aw ma problème mu ne ma mais Sorano dafa baax a jaar dëgg la da ngay dem woon leen yow la kan mhm. xëy na nag doole jooju ma leen wonoon mhm. ba tax ñenn ñu bari dérangé woon naa leen moo tax ba ma génnee ñu ni ahaaw waaye sama salaire nga fa ba léegi de ah waaw du ñu def dara ba boole ma ci loolu maa ngi koy adressé waaw bu baax. Ahmadou Ba. Amadou Ba mel na. waaw maa ngi ko koy adressé. di ko adressé de passage. waaw di ko di ko mhm. ñëw ci moom mhm. léegi. di ko adressé ministre de la culture bi. Mhm. ministère suñu ministre de culture bu bees bi. waaw ah di Alioune Sow. Alioune Sow ko koy yëgal. ndeysaan di ko yëgal directeur Sorano bi. ca ancien yi laa bokk du ñu def dara ba boole ma ci. xoolal loolu pour lan. damay toog rek di seetaan loolu. pour lan am na solo taxaw fa. man na bu ma dara na mu dara foofu waaw man na mu ma dara mm. maa ngi sant yàlla maa ngi añ mhm. di nekk ak samay doom ñu di ma teral na ma dara la insister foofu waaw waaye mhm. day baax boo jaaree ci bërëb bu ñu demee bay fàttaliku yooyu ñu war la cee mën a boole mhm. parce que parce que demoon nañ ba maawu kuwaate waaw bu jëmee conseil maternité wayam maa ko daan woy ah bon waaw te am na ñu ma fa fekkoon waaw waaw léegi nag ñoom bu ñuy def seen yëf du ñu ma ci boole. dëgg la te man du ma guinéen dëkkuma Burkina Faso. déedéet fii nga dëkk. def ah artiste di ndaanaan woy ba am ordre di mel am 33 tour coow li muy bari bari ay sa mbay rek ku ko am ci jigéen ñi. Mm. laay wax ca kaw laay wax. dëgg la ku ko am génne dëgg la waay mbay. Njaga Mbay mooy premier mm. man deux. wallaay taal YouTube bi léegi di nga gis deuxième ay sa mm-hmm. kon ana beneen première. wallaay gisuñu ko mbay. su ko Alioune Sène ministre culture gisoon du def ci Jeune Afrique. waaw waaw macha allah waaw. ah may kontaan nag di bég di sant yàlla. Mhm. bi ma demee nag dema dema dema dema dema dem ba xam ne nag fi mu nekk nii. Mhm. war na maa liggéeyal nag Serigne Touba ndax moom rek laa bëgg. macha allah. sëñ Saliou Mbacke di sama sëriñ. dëgg la waaye sëñ Abdou Karim sëñ Fallou di sama sëriñ. sama papa ba pare ma bëgg ko. waaw waaw. doomam ji ma gis fi mu teg tànkam. Mhm. di defar gune yi bëgg a sànku. waaw waaw. di dimbali. Baye Karim néew ji doole yi. Baye Karim di dimbali néew ji doole mm-hmm. toog naa di xool. Mm-hmm. muy joxe di joxe di joxe di joxe ba yàgg ma ne ko baal ma de. waaw baal ma damaa bëgg a jël parole. Mm-hmm. mu ne ma waxat ma ne ko damaa gis ñii fi ñëw ñëpp sama fas wa dee na la ñu wax. waaw sama soxna sa daa am doom. waaw waaw. sama dépense ba jënd. wallaay sama kër ga daa daan. Mm. sama oto ba daa accidenté. ngay génne di joxe te man gisuma. ku la fi joxagum ñeenti junni. ay lay li nga fi jox ëpp na million. kon loolu jaaxal na ma dama la koy laaj. ndeysaan. mu ne ma loolu lépp sëñ Fallou ko def ci man. ak sëñ Bamba. say doomi sëñ Fallou. waaw ku ma mën a dimbali dinaa la dimbali. Mm. ndax looloo tax Baye Fall yi ma doon yalwaanal. Mm-hmm. nga bëkkale yi sol bële bëlaan. Mm. naan Baye Karim jërëjëf seen ndey amul xam-xam seen xel guddul. naan lan moo tax dunu liggéeyal tey liggéeyal doomi si fan wallaay ndeketeel bu ñu ko yóbbee addee ji mm. da koy jël amu bëri sotti ko ca laay laay li laa saa yu ñu rek mu jël bëri ko sotti ko ca ñoom xale yi sëñ Abdou Karim may jël yelwaan sotti ko ci bëri ko waaw ku dikk yelwaan ba pare ba indi mm. mu jël yelwaan sotti ci bëri ko laay ba muy xaalis bu bari mm. mu teg ca xaalis dem ba Touba Belal mu jënd fa juróom benn hectare moom Baye Karim waaw moom Baye Karim mu jënd fa juróom benn hectare dagg ko ay kër waaw jox Baye Fall yëpp rendez-vous ñëpp ñëw mu ñoom ñëpp mu leen ci carnet bu mag ba mun leen jox naa leen rendez-vous Touba Belel dimanche Baye Fall ñi ñii dugg ci ay njëmbat ñii dugg ci ay ay njaganjaay dem fekk ko Touba Belel ku mu ni la sa kayitu kër a ngi nii. laa ilaha illallah. ku ni la sa kayitu kër a ngi man bu may ànd ak yow damaa bëgg nga mel ni man maa mel ni sama doom. ci sëñ. sëñ Abdou Karim a def loolu gayal mu tufay sa ngoon ak mm. séeréer sa ngoon. Mm. sëñ Abdou Karim sëñ Fallou Mbacké def lool ku ko fi sa def rek wax ko. waaye dëgg la sama sëriñ def lii. waaye dëgg la waaye moo jënd juróom benni hectare. ca mm-hmm. mm-hmm. dagg ko ay def ko cité des Baye Fall. Mm-hmm. jox ko Baye Fall keroog ba mu leen ko joxee dañ doon supp jale ñii di doo juutu ñii di dóoruy kuur laa mu ni leen man bu may ànd ak yow jëf jaare yi jëf jaare yi Mbakke damay bëgg nga mel ni man maa nga mel ni sama doom wallaay dëgg la du ma leen bàyyi ngeen dem ci naaj yi daw di kar oto yi jàmbur yi rek te bu ngeen dikkee du ngeen am foo dugg seen cité yaa ngi nii fii may waxee ak yow procès tabax foofu noonu mm. mu nekk cité de Baye Fall ci la nekk ko yàlla mu tufay sa ngoone séeréer sa ngoone yàlla na nga gudd fan. ndeysaan yàlla na nga fi yàgg. ndeysaan amiin yaakaar. soo fi yàggee yàlla na nga wér. amiin yaakaar xaw ma lu ma lay fayee. Mhm. danga maa teral ba xamatoo looy def nga dagg. ndeysaan dagg ba dagg juróom ñaar téeméeri mètre carré ni ma jëlal. Mhm. dëkkal may ku la neex. kii lu ma koy fayee. xanaa nga may ci waa 7TV gi nga xam ne tey ñoo ñëw dalal la. waaw tey taalibe Serigne Bamba. waaw wëlbati ko di waa kër Serigne Fallou. waaw Baye Karim ku ne yàlla na fi yàgg te wér yàlla fi yàgg te wér. Baye Karim yàlla na fi yàgg te wér. télé bu mag bii nag di la 7TV bàjjen. waaw. dafa am lu mu àndal. Mhm. bëgg mu gunge ko ci biir émission bi. Mhm. ñuy woo sponsor yi nag. Mhm. bëgg ñu ñëw ànd ak ñun ci ëttu kër ndaanaan yi. mboolem koo xamante ni daal. yor nga loo xam ne leer na la ni concept bi rafet na ci. te it dinañ ko ci soxla bàjjen ñu ngi lay woo. tey waxit tamit yow koo am mhm. tubaarkàlla ci warga mbaa muy jus mbaa muy ndox ñu ngi koy woo ci émission bi li ñu xeli nag ataaya la waaw te ataaya ji am na nu mu tudd waaw te bëgg nañu am tur dëgg la kon nag mbay ñu ngi lay wax képp ko ci yaakaar nga woo ko kama ci njëkk a woo ndeysaan ñu ngi lay jox kaas bi jël naa ko ci barkeb sëñ Saliou Mbacke jël naa ko ci barkeb sëñ Fallou Mbacke ak sa ak di ko naan ci barkeb sëñ Abdou Karim ak sa ak sa ndeysaan ki may njëkk a woo waaw mooy doomi Alaaji Fallou ndeysaan ki may njëkk mm. mooy doomi maam Awa Faye gayel mu tufa ndeysaan tufa yi sa ngoon seel yi sa ngoone Massiré Issa Dieye mi daan lakk dëkk jàmbur yi. ndeysaan Cheikh Abdoul Karim Baye Fallouk soxna maam Awa yow laa njëkk a woo. Hmm. yow yaay sponsoru 7TV. saan man ay Mbaye maa la def set maa la def sponsoru 7TV. wallaay ci émission bu mag bi. ci bu mag bi. say taalube gis naa leen dañuy daje ci yow. ndeysaan am nga taalube yoo xam ñu ngi ci suukar si. Hmm. ñu ngi ci isini suukar si. ñii ñu ngi ci isini café yi ñii ñu ngi ci isini attaaya ji ñii ñu ngi ci isini ndox ji bu màggal jotee dañuy jël say photo def ko ci ndox mi di ko indi foofu ndeysaan di jël warga wi di ci def sa sa sa photo di ko ci def ndax yow Mbàkke macha allah sama xaali xii na sa baay dafa gërëm sa yaay macha allah nga barkeel loo ta loo loo laal sa loxo moo gën loo laal sa loxo man de Mbàkke ba nga ma la ba nga tegee loxo ba léegi maa ngi dem ca kanam rek taluñu koogu ma yàlla mu ma def ndax benn yaaka mbay dama bëgg sa taalube yooyu nga xam ne ñoo lay dar. Mhm. ñooñu xar yooyu dana dar di indi million yi di indi conteneur produit yi nga boole leen ak waa secteur ñu nekk seen sponsor. ci ëttu kër ndaanaan ci kër ndaanaan yii. Mhm. ba lépp lu ñu jógate di ko def ci ëttu ndaanaan yi ak équipe bi ñoom ñëpp. Cheikh. Mohamed Cheikh Mohamed. ah Souley mooy suñu patron moom lañu ñu papis boole nag Ablaye Mbaye doomu Njaga Mbaye sa doom aji ngoy caali aji doomi Cheikh Mbaye ndeysaan sab xarit Cheikh Mbaye papay Modou Mbaye garmi ndeysaan sab xarit xamante ngeen ba nga nekkee fii mi daan fa ñëw di jógee ñaari tali di ma man ni ñu di la fa fekk ndeysaan <laughs> ajeen nii ñoo ñoo def émission bi tey waaw waaw <laughs> man nu ngun sponsor bi xëpp la ko waaw waaw Mbacke ngir bëgg yawit nga dugal ci sa waxal ak moom fii ci caméra bi mu ngi lay dama laa xëpp sponsor bi man ay sa mbay mhm. bëgg nga dugal ci sa loxo soo ci dugalee sa loxo xëpp ko say taalibe yi nga xam ne ay usine la ñu yor ñii warga ñii suukar ñii ndox ñii kafe ñii lu ne nga xëpp leen ci ñoom ñu jël ci seen wàll mën a def sponsoru ëttu ndaanaan yi wallaay ba équipe bi man cee gis seen bopp sa njaboot gi man cee gis seen bopp ndax ñaar ñi def seen émission bi kat ñoom ñëpp say doom lañu waaye ñoom ñëpp seen baay dem na ndeysaan Cheikh Mbaye dem na lu ma mës a ñaw lu ma mës a sol moo ko ñaw. ndeysaan. te isim ñaar tëri grand tailleur. ndeysaan. waaw. ndeysaan Ablaye ngi Ndiaga Mbaye ko jur. xala man na la fu ne. ndeysaan baayam dem na ba ko sa njaboot gaa ngi de. seeni baay dem na balaa ak ñoom. loo def fu ne baax de waaye man sa góorlu juddu bi maa la poñe maa la ne ciix ne la def naa la sponsoru 7TV. ci émission daanaa ci émission daanaa nii waaw. looy tàggoo. Ah. Mouhamed kaas bi moom maa koy may Cheikh na Cheikh Saddu xam naa ne mu ngi waajal gàmmu ngumba ngeewul ndax fa la jëm Cheikh na nag day taalibe Cheikh na Cheikh Saddu di xale ànd ak ñun di caméraman ànd ak Seydina Mouhamed mi Mouhamed kaay jël kaas bi nga joxal na ko Cheikh muy waajal gàmmu gi macha allah moom ngumba la jëm macha nga ñëw joxal ma bi ci des Souley Souleymane macha allah di xale bu baax ñu ànd moom tànday naxee naxee ko jur naxe gay mm. ñaari tali mm. mooy yaayam kii sama doom la wallaay sa dooma moos man samay samay doom ñoo ñëw ak Mouhamed ak Mouhamed mi macha allah maa leen may ataay ji ñu ngi xaar sponsor yi ñu ngi déglu ñaanu Baye Karim dina ñëw léegi ñu ngi leen di xaar bàjjen looy tàggoo sa dernier mot li may tàggoo mooy mbaarum allah ji fal allah dan ma cee fal jëwriñ hmm. carte baa ngi nii carte de membre yaa ngi nii kii ñu ni lay jar ku ko am sa photo ngay def fii mbaarum alaaj Fall Abda Assis Samad Dia moo ko sos ca France Normandie hmm. def ma ci jëwriñ mang mbay ni bokk Alsaan bay ndey baay mang mbay mi bokk alsaan day ak baay bàjjan tàllalal bu baax carte bi mooy jëwriñ ndax dafa am solo waaw mang mbay mi bokk alsaan mbay ndey ak baay waaw mooy mooy mooy mooy président président bi yow jëwriñ lañ la def waaw jëwriñ la di jar junni waaw Siré Cissé bu ministère de la culture mm-hmm. te Ndey Xuja Jaañ ndeysaan moom la Siré Cissé di liggéeyal ndeysaan ñooñu nag Abdou Assis ma ca France moo sos mbaar mi keroog kas rajab jël leen def leen ay jëwriñ ak magam suñu frère seen frère taaw dugal ci Badara Mbay sama doom ja ca mairie mhm. dugal ci sang Mbàkke doomi Kumba Caak sama rakk ji mhm. topp ci man ndeysaan Amadou il faut ma jox ko message waaw waaw premier yaayam béeli sa way maamam ci isim ñaari tali. mu doon booba booba ba fa Seex Mbay nekkee booba judduwul sax. wallaay ndeysaan. te de booba moom juddoogul. Mhm. Amadou Ba juddu ci sunu kanam man ay sa Mbay. Marème Bala yaayam. man Aysa Mbay. nday jang mu papa yaan ma saar mhm. yaayi mbay mbooj mu papa alaaji mbooj mhm. ak nen na ja mu yaaya ba ñoom ñun ñii ñoo doon ànd ak ci ñaari tali sama yaay Fatim Mbay waaw ak Fatim Mbay wallaay ndeysaan ca isin ñaari tali Mariama Baal. Mm. di jeeg bu baax bu riche bu am maana bu doylu bu lislaami Mariama Baal yaay Amadou Ba mi def na fi ay hôpital def fi ay post de santé def fi ay jàkka ba pare dem bàyyi ko fi ndeysaan nag bi mu mujjee sarxe barke Serigne tubaab Mbacke man mii la woolu ma ñëw mu ne ma tey duma la may xaalis ndeysaan waaye yàpp rek laa lay may ndax géwél yàpp la ndeysaan <laughs> jël ñaar mbuusi ñaari mbuusi ñaar fukki dërëm. waaw def ci yàpp mu fees mu jox ma. ndeysaan. beeli saw maamam mi jur Mariama Baal. Mhm. danaan jël leget yu bari yu joos mu weex daal def ko ceeb ba mu fees daal bu nekk mu def ci litre diwlin jël xaalis dugal ci biir. jeeg bu ñëw ne kër ga tey neexul mun la jëlal leget gee yóbbu Amadou Ba bu séddalee kenn du ñàkk de. déedéet. ndax maamam beeli séddale na ba dem. Mhm. Mariama Baal ndeyam séddale na ba dem. lu baax rek la fi def. ndeysaan. Amadou Ba ay waay wàkk ma ca somb jéeri koli sama doom laay woo premier ministre Sénégal bi ay waay maa ngi lay woo ceetu ndaanaan yi ay waay Amadou président Macky Sall Sall Mariam boolo boolo Mariam Sall boolo bàyyi Amadou dafa xool gaañi ba ñu doy leen mu xool la ba nga doy ko mu jël la boole la gaay ni leen ànd leen liggéey ngir ngeen mën a liggéeyal Sénégal li ma commencé woon ngeen yeggale ko waaw ma jaar foofu tàggoo bàyyi sama bàjjen sama yaay lépp mu tëj lii lañ leen indiloon ci ëttu kër ndaanaan yi mm-hmm. tey na xam ngeen ni ñëw nañ ci kër ndaanaan ay sa mbay borom xalaas yàlla buur la xam ngeen ni dugg nañ ci kër ndaanaan caméraman bi nag bi ma toppoon ci émission bu mag bi ñu naan ëttu kër ndaanaan yi Cheikh na Cheikh Saad la mu ànd ceeg Soulay ànd ceeg Seydouna Mohamed sallallahu alayhi nee naa ko mooy bébé caméraman yi ma ànd ak Papa Mbaye di la wax jërëjëf Mbaye ah, ah, ah. man ajaratu ngoy caali macha allah lii nag ci ñaw bi macha allah Madeleine Ngom la. Mm-hmm. tey moom a ñawal. Mm-hmm. mu ngi ci Nations Unies macha allah. Madeleine Ngom kon ku bëgg yi aji ngoy caali di sol rek. na ma ci ñawal Madeleine Ngom na kanam gi nag bala sañ numéro bi 77 442. 21 92. lii lañ leen indiloon. di wax nag ñu ngi xaaraat yeneen i ndaanaan. Mm-hmm. ci ëtt kër ndaanaan ndax nee naa leen ëtt bii. ndaanaan bu ne dina ci toog. ñu di la remercier ci décor bi wax dëgg yàlla lii lañ fekk nga defal ñu ko ci ëtt bi ci sa xaalisu bopp ci sa moyen bopp teral ñu ba ñu tedd macha allah ne la 7TV daal seen concept yi am na solo dama leen di bett bu ñëwee ëtt la ñu wax ndaanaan la ñu wax ñu fekk fi démb bàjjen tubaarkàlla ñu ngi kontaan bu baax waaw man mii kontaan naa ndax li ma gën a kontaan loo mooy sunu directrice bu ñaawul bi a Khoudia Diagne ndeysaan di jigéenu Amadou Ba. Mm-hmm. di jigéenu Aline Sow. di jigéenu Siré sise mm-hmm. damaa bëggoon a bi ñu ko jëkkee date ñu def ko rek. wallaay mbay. kon bu nee tal bu yegsee fii nga xam ne lépp neex. wallaay mbay xam nañ parce que Serigne Touba ndax loo ko jëkkat. dëgg la mi ngi ci réew mi waaye mi ngi jàppale artistes yi di jàppale ndaanaan bëgg naa yeneen ngeen seeti ko incha allah mu jàppale leen def loxoom ci émission bi nday xuja nday xuja ministère de la culture Aliou Sow maa ngi leen di woo ci émission bi man ay sambay géwél mii patrimoine yaay sama yaay de patrimoine mm-hmm. maa leen woo ànd ak doomu Njaga Mbay ànd ak doomu Cheikh Mbay woo leen nag ci concept bi nga xam ne dañu koo def muy ëttu ndaanaan ñuy fekk ndaanaan yi ba seen kër man Amadou Bala am ndax dayam laa doon àndal Marème Ba ca ñaari tali mu beeli saw hmm? doomu ndey Aminata Ba doomu ndey Abbas Ba man sama doom jooju rek laa ndeysaan di ko woo di woo Ndeye Khoudia ndeysaan directrice bu ministère de la culture ndeysaan di woo ministère de la culture ndeysaan Alioune Sow mu jàpp ci émission bi émission bi am na solo ndax yow yaa ne da nga génne budget ministère de la culture ak patrimoine ñun ay patrimoine na ñun dañoo fàtte woon di kon nag ñii nu fekk ba sunu kër yi diñu laaj diñu génnewaat yéen itam war ngeen leen a dooleel ndax ñu gën ñoo mën a jàppale dëgg la mbay ndeysaan waaw man loolu rek laay tàggoo ak sant yàlla ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke yàgg fi te am di Amdi Moodu Mbenda yàgg fi te wér Cheikh mhm. Abdoul Karim Mbàkke yàgg fi te Mbàkke loo commencé yal na yegg njabootu Cheikh Saaliwu Mbàkke gi yàgg te wér may galas yàlla mhm. bàyyi ko ci sunu kanam yàlla guddal fanam mhm. noon ndey bu so ñu yàgg fi te wér ak seeni rak Sabel Njaay ak ñoom ñoom maa ngi leen di ñaanal yàlla ñu gudd fan ba sut maam jaara sama taa ba may jooytu noppeeguma aw fan may galas maa ngi lay nuyu di la jaale di la jaalewaat jaaloon naa la waaye maa ngi lay jaalewaat di la gën a muñ loo waaye maam jaara dem na waaye nday bu soo bu reer dee doy rek ba reer daaw yi ndey bu sa dalal na sunu xel yal na ko fi yàlla bay borom waay acan di nuyu Sabel Ndiaye mm. di nuyu uh, sëñ Mbàkke di nuyu uh, maam Awa sama sama caat mi di la wax ne Ngoy Mbay nag émission bi bu leen ko tëj bàyyi leen ko mu ubbeeku. saan waaw. lan mooy ubbeeku. lan mooy leen primature. man dinaa ci dox. Mm, incha allah. song leen ministère de la culture dinaa ci dox. Mm, Mohamed jëlee ñu loolu. waaw song leen. direct direction des arts. Mm-hmm. te Ndeye Khoudia Diagne. Mm-hmm. sama doom ji. barki démb rek la def anniversaire ma defar ko surprise mu defal ma lu rëy. ndeysaan dinaa ci dox. waaw waaw ma ngi noonu. parce que émission bi. dafa war a yaatu te dañ cee war a dugal loxo def ci moyens yu bare bare parce que patrimoine la waaw waaw rek ngeen di jël ndeysaan aja xalaas yàlla bu déglu leen déglooti leen ma wax ak yéen ndaanaan ni réew mi laa bëgg woon Cette TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, cette TV est au canal Sur le bouquet Canal+, votre chaîne de tous les événements est au canal Cette TV est également disponible sur le bouquet orange de la TVO au canal Cette TV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble.